maa ngi nuyu sama collègue député yi di nuyu monsieur le ministre garde des ministre de travail ak ñi mu àndal monsieur le ministre tey dañu ñëw fii nga indil nu benn projet boo xam ni mooy loi numéro 03 2024 le 2 février 2024 yaakaar naa loi bi muy ñëw fii si taabalu assemblée national ancien régime bi fi nekkoon muy Macky Sall moo ko fi yónnee woon. monsieur le ministre muy loi boo xam ni depuis booba léegi am na ko jot a am na ko jot a am na ñoo xam sax gisuñu ko ndax tëluñu woon loi bi parce que ñu ngi woon si ay élection monsieur le ministre muy loi boo xam ni. dafay ñëw di modifier loo xamante ni moo nekkoon lu mu fi defoon muy commission Sénégal de droit de l'homme tey ñu indi benn loi boo xam ni mooy def commission nationale de droit de l'homme boo jëlee article vingt-deux ci règlement bi ci dernier alinéa bi moom ci lay abrosé li nga xamante ni mooy loi bu bi monsieur le ministre garde des Sceaux en tant que kilifa diine en tant que doomu daara droit de l'homme mooy lan monsieur le ministre gis nañ ci loi bi ñu wax ci loi bi ne organisation protection de droits de l'homme organisation protection des droits des femmes organisation protection droit des enfants organisation protection droit de handicap mais ana ñu suuf la lan mooy ñu protéger ñun. monsieur le ministre foofu lay sukkandiku jàll ci jëf yu ñaaw ji nga xamante ni ak wax yu ñaaw ji fi am fan yi te ku ñuy wax Omar Diagne yëkkati woon ko jëm ko ci kilifa diine yi. monsieur le ministre garde des Sceaux photo bii ci ginnaaw maam Diop président assemblée nationale photo Serigne Touba Khadim la jamono Senghor ba léegi mu ngi fi booy dugg assemblée photo bi la tiim sëñ Tuubaa kooku suñu mag ñu baax ñu fi nekk kenn wër leen yow may laaj ba xam le président république dafa gën a foot c'est Ahmadou Bamba wala El Hadj bëgg nañ si ay réponse parce que ku tooñ président de la république dafa am si kër te ku tooñ sëñ Tuubaa yendu si kër loolu bëgg nañ si aussi tamit nga leer ñu si parce que monsieur le ministre ñun diine ñu gën a lépp. bu ma bokkee si benn tariixa Serigne Touba liggéey fi loo xam ne li mu liggéey ñëpp xam nañ tey mooy jàmm réew mi ji Malick si liggéey loo xamante ñëpp xam nañ ko tey benn taxaw nii boo demee jumaay Touba ji fii ñu formation moo fa nekk lu ñaaw te dégguma benn yoon état bi condamné li nga xamante ni mooy jëf ba ñun ñun nag loo nekk nekk suñu xarit muy gouvernement bees bi Serigne Touba moo ñu gënal gouvernement li ñu am mooy cër bi ñu Serigne Touba jeex te moom la ñu défendre à tout moment li Omar Diagne wax naqar na yoonu murit naqar na tijaan yi naqar na islam naqar na Sénégal yëpp kon monsieur le ministre ci kaddu waa Touba en tant que député de Touba en tant que fils aîné de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mi na xamante ni soxna Fadja mi taaw moo jur sama waajuru jigéen maam mook sama waajuru góor ñoo bokk benn waajuru jigéen muy Serigne Abdou maa ngi demandé ci turu waa Touba Cheikh Omar Diagne ñu dind ko fi mu nekk parce que méritoowul fi mu nekk loolu nag yóbbante la boo xam ni na nga ko àddu njiitu réew mi ba xam moom day jël Cheikh Omar Diagne jënd ko ay millions de personnes waa wala déet kooku Touba mooy prendre ay responsable parce que fi ñu jëm jàpp naa ne bu ko Sénégal yi wooteelu diine yi wooteelu ko li mu bëgg si ensemble mënu ko amaat di la yóbban jël ak yóbbante yoo xam ne maa ngi ko jëlee fu ñuy wax Foundiougne monsieur le ministre comme yaa fi toogal gouvernement bi Foundiougne dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ne bëgg nga àggale ko gouvernement bi mooy département bi nga amul am na fi benn port boo xam ne depuis 2014 lañ fi inauguré ba léegi doxul Foundiougne mooy dëkk bi nga xamante ni hôtel ba fa nekkoon di indi touristes yi sax dafa tëj Foundiougne ndaw ña fa nekk amuñu liggéey jigéen ña fa nekk amuñu ay formation ak financement amuñu aussi ñi nga xamante ni mooy sax ay frigo yoo xamante dañ fay mën a euh, def li nga xam mooy seen produit en tout cas di sant si Ahmadou Bamba di gërëm sëriñ Touba di ñaan sëñ Mountakha mu yàggu ci wér te xam ni Touba si kanam Tiwaawan si kanam Laayaan si kanam Cenn si kanam Njaasaan si kanam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp si wér bi jërëjëf asalaamaaleykum merci cher collègue Adji Diarra Mergane vous avez la parole Je vous remercie, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, euh, Monsieur le ministre garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi, à charge des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, je vous salue à vos rangs, grades, titres, tout protocole respecté. Chers honorables collègues députés, euh, Monsieur le ministre, vous me permettrez de saluer la présence de Madame la Présidente de la commission des droits humains madame Amsatou Sidibé qui fut mon professeur à l'université de Dakar euh, une une, dame compétente donc euh, intègre et je voudrais à travers elle rendre hommage à toutes les femmes professeurs d'université je veux citer madame la le professeur Ndeye Marème Badiane ministre d'État madame le professeur Ndeye Lucie Cissé qui est notre collègue Madame le professeur Pendamo, entre la Présidente de la Commission, vous transmettre les salutations de Madame la Présidente Aïda Diawara, qui vous félicite pour votre nomination. Monsieur le ministre de la Garde des Sceaux, euh, moi je vais, je vais parler euh, d'une instance que je connais, qui est l'Union interparlementaire, dont j'ai été vice-présidente pendant 4 ans et membre du comité des droits humains. Euh, monsieur le ministre garde des Sceaux, euh, le comité des droits, des droits humains de l'UIP avait souhaité collaborer avec la Commission nationale des droits humains, notamment dans le cadre de renforcement de capacités des parlementaires, y compris les PU, l'examen périodique universel. Monsieur le ministre, garde des Sceaux, je vais faire une digression. je suis je fais partie de ceux et celles qui pensent que le Premier ministre, mon frère Ousmane Sonko, ne viendra pas faire sa DPG. Et c'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je voudrais vous vous mandater parce que j'ai été saisi par euh, le collectif des contractuels des établissements de santé qui depuis quelque temps court après Euh, leur indemnité de logement. Ils ont eu à rencontrer le ministre de la Santé qui leur a effectivement confirmé que le dossier était déjà arrivé et que ce dossier est transmis au niveau du ministère de la Fonction publique et qu'aujourd'hui, ce dossier est sur la table du ministre des Finances. Je pense que, en tant que ministre de la Justice, voilà ce que je pourrais appeler une injustice sociale. Et que vous, monsieur le ministre Garde Sceaux, vous pourriez y véritablement trouver des solutions en rapport avec le Premier ministre du Sénégal.